monsieur le commissaire les députés de Yéwi Askanvi ont recours au conseil constitutionnel Ce recours président Macky Sall ajandi loi bu la constitution député Benno Bokk Yakari député voté ça veut dire que nous sommes en campagne électorale te bu ñu waxee campagne électorale dem saafonteeg askan wi dem waxtaan ak askan wi dem wax leen lan moo tax ñu war a votel Jomaay président dem wan leen ngir ñu min ko bulletin de vote Jomaay euh, président ndaxte xam ngeen ne ñaar fukki bulletin la donc ci la ñu avancé waaw bi ñu avancé nag gis ngeen ni ñu waa HLM teeroo dafa mel ni waa HLM dafa mel ni askanu Sénégal Jomaay président rek lañ doon xaar dafa mel ni askan wi dañoo namm Jomaay président dégg ngeen fa sax ay yuxu ñun Sonko lañu and dafa melni tamit askanu Sénégal nam na bu baax baax kii di président Ousmane Sonko ay président Ousmane Sonko bés bu génnee dinañ fi gis loo xam kenn mësu ko gis ay président Ousmane Sonko bu génnee mbooloo mi nga xam ne président Macky Sall bëggul àddina bi gis ko ci ne ñooñu ñoo topp Diomaye président ñooñu ñoo topp président Ousmane Sonko ñooñu ñoo topp Pastef dina gis mbooloo boo xam ne kenn mësu ko gis